def def laisser deux parce que lolu moy kilifa dama kontaan ci yow moy moy moy dama trois heures de temps di mais ma ngi nuyu pas bu euh, mais sénégalais won nañ la parce que nous ñoñu fa togo nak ñoo ñep xam ah. nañ yow kan. <laughs> man personnellement. bu doon man la. Mhm. man reculé mhm. mais ñi fa tok mhm. won nga di remercier aussi télé ba nga ju TFM. waaw le fait ñu xam sa autorité. parce que xam nga parfois koo jël foofu rek. teg ko mm-hmm. guignol wala nga def ko. Mm-hmm. benn ignorant di ko foowee. Mm-hmm. moom mën na bañ a xam boppam waaye ña ko teg xam nañ yow kilifa nga. parce que moom joué la ñu ngi koy foowee. waaye yow xam nañ ni yow kilifa nga fa. léegi nag gis naa ne ñu wax ba jeexal. li ma doon xaar rek. mooy ku la tudd. fii ñaan ñu fi kenn yekk fii tudd rek lañ doon xaar. tudd lañ doon xaar dégguñu la. dégguñu ADF dégguñu benn journaliste dégguñu leneen ah. donc macha allah côté boobu moom dafa exemple bu ma bëgg nit ñi bàyyi ci xel. mais maa ngi maa ngi gërëm bu baax nag euh, euh, sama rakk Bijou ngoone on ne se pas euh, du ñu ay xarit waaye dëgg-dëgg maa ngi saluer professionnalisme Euh, ak euh, wax dëgg yàlla gis naa évidemment na nga toogee di ko seetaan man itam noonu laa toogee woon di <laughs> toog di ko seetaan armé <laughs> ah waaw waaw waaw waaw waaw. Ah, waa ji tamit ah, te li ma wax ah, rek du man dong maa toogoon. ñi ñi toogoon bari nan euh, côté bee cabinet bële ñoom Abdou Diallo ñépp ngi toog. waaye ba ma toogee bi biisu nag gis naa lépp fa laa yem. gis ah, naa mais mais ay kilifaam ñoo waxoon moom. gis naa lépp da baax rek. waaw baax rek ku sa directeur woo nga yaru. <laughs> maa ngi nuyu sama papa bii ñu boone lu dul ruube du woo du woo mu kuy kuy kuy kuy yëngal rek. maa ngi nuyu bu baax sama papa. mais euh, keroog ñu bu baax a baax moom sama papa la di sama xarit presque euh, nee na man maay consultante am. Ah. day voyager sax euh, jamono ji dafa naa nekkul Sénégal day voyager sax mais chaque jour dafa may woo. ma fi nangam ñu waxtaan ci yu bari bari bari sama papa la sama xarit la te loolu du tey ndax boobu ba deux heures di sosu la ma nekk euh, wal fajiri euh, mu bëggal ma boppam moom ak sulay yaay ak nak euh, abdul jeta ba nga xamne fuma ko fekk daanel ko neena ko yow mom fuma ko fekk abdul carte bancaire ba mom carte gabba mom day soté day tepp waaw kon numa wax rek senegal mom ñoko mom ñoko bokku Euh, te euh, Futurs Médias waaw njaga njaga moom li ma wax rek njaga nduur mhm. euh, da di sama mag di sama xarit te li ci am solo mooy moom wax naa ne maay témoin de mariage am te loolu ay caaxaan beneen ba waaw def na fi kilifa beneen ba mooy ñoom xam nañu bu baax a baax a baax man maay kan Euh, man itam xam naa bu baax a baax ñoom ñooy kan sama diggante digganteeg Futurs Médias moom ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ku seytaane ba dugal sa làmmiñ da fii para paxaar ba noppiwaat ndaxte ñoo xam ne da leen fekk ñuy ànd xamoo nu nu àndee xamoo nu nu toogee booy wax sa wax danga koy wax rek à côté mais bañ cee dugg ndax fii ku ñàkk fayda amu fi ay kilifa lañu kilifa laa ñoom ñu kilifa Futurs Médias bee même su ma fa jógee kilifa dong laa fay doon ndax kilifa laa fa duggee te ci kilifa laa fay génnee ci kàttanu yalla ak mbaaxam waye nak dara du ñaaw sama digënté ak ñoom ndax ñu ngi koy ñaanal yalla bu baax fanam waaw ndax anniversaire am demb demb la woon ah, parce que Sénégal nak Youssou Ndour ah, dafa jara ñaanal man man man ñu bari xam nañ sama digënté ak ñoom mm-hmm. mais Youssou Ndour personnellement waaw ah, kenn mënu ko waxal dara euh, dañ ko wara ñaanal parce que kuko ko bëgg mm-hmm. sombre wala ku ko bëgg yaq image yaangi mm-hmm, yaa ngi Youssou Ndour augmenté ko mooy augmenté diplomatie Sénégal yaa compis di côté économie ak côté wooy ak côté xaalis mm-hmm. Mm-hmm. kooku moom nañ yeneen côté nit mën nga si joteeg moom mais yëkkati Sénégal yóbbu ko ci raayam pour kawe ak am yar créer emploi parce que xam nga neex mooy tey Youssou Ndour tax na plusieurs pères de famille mm-hmm. moo tax tey télé boobu ku ko bëgg song ci impôt it Sénégal nga bëgg a parce que li mu occupé te ku am yar la te gis nañu ci combat bi mu amee au moins télé bi tenir na. voilà am na tenir te Sénégal nag yóbbu nu ko fu ne. kenn moom ñun ñii wax ak yow nii depuis lii rek xale ak suñuy waajur ak ñëpp ku ne ñi fi toog tey sax moom lañ doon déglu. dëgg la ay waayam ba mokkal ay waayam. donc Youssou Ndour nag référence la. ci côté opérateur économique. dëgg la. waaw ñu koy ñaanal fan wu gudd wallahi wallahi dundam amna njariñ parce que dundam amna njariñ parce que il tient beaucoup beaucoup de pères de famille revenu ku ko créer rek ñaanal ko voilà ma sha Allah yalla yalla yok fanam abu fi nga jéxal la neex tay mom abu mom vraiment dafa ben dérapage hmm. tay mom yaq ah, en dudu abu tay yaq luñu dara hmm. waaw deug deug tay mom franchement xawna xawna xawna xawna xawna ki tuti mais euh, xam nga nandita na indi wat na ki donc tay mom dama lay yoni ci babacar mbeng bëgguma laal deng ma parce que non non parce que dama yóbbante naa la. xam nga hmm. yóbbante naa la ci moom. Hmm. parce que fii. je crois mooy mooy meeru Hann Marais parce que Hann Marais ah, bokkul ci gestion am dañuy souffrir ndox yi taay yi ba tey ak pro topp topp yi fa nekk. ak problème mu tali yi yàqu yi. ak ruq yi ñaari entrée yi dafa fatt parce que oto manque hydrocureur ak yenn yu ñu mën a pavé ak réparation yi loolu travail municipal mën na ko Djibril mm-hmm. Wade mu ngi pavé presque tout biscuiterie mm-hmm. dañ koy yóbbante ñun waxuñu pour critique mais lu ñuy dund la mu metti mm-hmm. ñu koy vivre donc yow fa nga dëkk ñun fa lañ dëkk mais man su bëggee nañ toog mu waxtaan ma ne ko fii ak fii lii ak lii ak lee parce que Maris waxuñu ko pour critiquer ko mais les gens souffrent te Maris aussi am na capacité pour mën a def réparation yi parce que mairie bu liquide la yore te fa la centre de santé bi nekk. mais les marissois souffrent. lac bi otage yu lac bi ak entrée ak sorte bi. donc yóbbante naa la ci moom. Ah, sinon bu fekkente ne wàccul loolu ñu xool maris def yenn réparation yi parce que maris bu tawee ba pare du ñu dund beau temps. c'est grave ça. c'est grave benn entrée Sénégal yi fa la ñuy pour contourner. booy dugg aussi pour contourner. tali pour dem xaw ma euh, darling bi. Ah, mooy dali foor non fa nga dëkk. xam nga Babacar Mbengue fa nga dëkk ville de Dakar nga nekk Babacar Mbengue ville de Dakar la nekk parce que gis naa ni yaa ngi dund loolu maris te man man rek maa ciy wax donc mais Babacar Mbengue on l'appelle man tant que maa ngi fi dossier maris bi léegi jël naa ko en su continuer damay bëgg ñu dagg maris si biir Hann def ko commune bopp parce que fa laa dëkk nag d'accord waaw léegi nee ko waaw léegi Abou euh, Tyler Durden nee na nga ñëw di def fii ay live nga bokk ci euh, team live formation bi. dina formation. waaw euh, euh, Doudou formé ko. incha allah waaw Tyler kon wax naa sa yóbbante nee na dina formé man mii sax ci formation laa nekk nii ndaxte fu ma waxee waxaale fa toj-toj kon mbokk yi euh, ñoo fi jaaroon ci kàttanu yàlla bu subaa a ngeen ñu gisee ngeen xam ne kenn woowuñu woowaguñu waaw ku nekk daana bàyyi xel moromam waaw ku ngeen fi gisul rek xam leen dañ ko woo. bu ngeen woo bu buñu man nag maa xaar bu ñu ma wooyee na ngeen góorgóorlu ba nag yow yow yow taay la dund ak ñoom ñoom ñoom may caw ak yooyu playa ngeen def nag seen délégation nag ñëw seet si ma nag daal di indi ay ay ay mais man bëgguma ay pom ak fruits bëgguma bëgguma yooyu nañu indi lekk ay